noonu la demee éliminatoire coupe d'Afrique euh, féminine 2024 euh, bi war a am fële sa Maroc équipe nationale bu Sénégal dina amal tey ñaareel bi match am ni ki tey lay doon bu 17 jotee foofee sa stade Lat Dior bu Thiès boobule match nag ña nga si dajeek ñi nga xam ni ñoo di waa Mozambique mhm. sa match aller ba danoo témboo woon ku ci nekk dugal sa moroom benn ball ginnaaw ba itam voilà euh, gone yi sa Moussa Cissé yi génn nañu xamle ni voilà dinañ def seen kéemtalaay kartan ngir gagné boobule match ndax bëgg nañoo bokk si boobule compétition te am na nañu yaakaar bu baax a baax du Mozambique moom moo leen di téye si kaw loolu antu maanaam Sénégal am ndam si kaw euh, Mozambique dina dajeek ñii di waa Égypte pour jouer match barrage. Mm-hmm. mbaa sama joueur bi Eva Neymar ñëw na rek. Ndeye Awa Diakhaté. Ndeye Awa je pense euh, moom amoon euh, empêchement mais yaakaar naa ñëw na. dina dina ñëw ah yàlla baax na. Euh, ligue sénégalaise bu football professionnel tamit dinañ amal tirage au bu calendrier premier journée bi ci ligue un ak ligue 2 saison deux mille 2023 2024. wala jot nañ ko amal sax niki samedi la woon ligue un bi. ak Ligue 2 bi pour la saison 2023-2024 ci Ligue 1 bi le champion en titre Génération Foot dina fekki Stade Mbour amal jonganteem bu njëkk AS Pikine dina daje ak ñi di waa US Ouakam Sonacos dina dajeek ñi di waa Dakar Sacré-Cœur US Gorée dina dajeek ak Jambar FC Casa dina dalal ñi di waa Linguère Teungueth FC itam dina dajeek ñii di Jamono Fatick Jaraaf champion Coupe du Sénégal dina dajeek ñii di waa Géejawaay ci Ligue bi dina doore ak euh, le duel Thiessois voilà Walidane dina dajeek ñii di waa CNEPS Lasvel de Rufisque dina dajeek ñii di waa Ñaari Tali Demba Diop FC dina dajeek ak euh, AS Douane Duc dina dajeek ma euh, Kër Madior mm. RS Yoff dina dajeek Ndiambour HLM dina dajeek ñii di waa Amitié Amitié FC mm-hmm. Thiès FC itam dina dajeek ñii di waa Oslo voilà yooyu la match war a door ni ki 21 octobre yamook bis bi njëkk bi bi bi nga xamante ni voilà ci la première journée di tàmbali ren nag la ligue sénégalaise de football jël ay dogal contre la prolifération des pratiques occultes maanaam moom maanaam moom mooy xon yi mm. parce que dañoo jàpp ni moom mooy la principale cause buy indi les violences dans les stades mm. tax nag ñu jël ci ay dogal ni équipe bu nu gis voilà muy pratiquer yooyu la mbir dinañ la teg ay daan daan yi nag du nekk daan financière waaye ay daan yoo xamante ni la wala ay perte point xaj na ci wala sax ñàkk sa match donte gañe woon nga. Mhm. Euh, mu nekkoon euh, programme mu Ligue ak euh, Ligue 2 bu Ligue sénégalaise de football professionnel Sénégal nag nga xamante ne mooy champion d'Afrique ci wàllu football suur ñoom nag daal di nañoo gañe seen match bu njëkk ci championnat du monde yu football boobu noonu gannaaw ba ñu dooree équipe bu Argentine ci samedi bi. voilà exactement noonu la demee équipe nationale bu Sénégal door na boobule compétition fële sa Malaisie ni ki samedi doon ca dajeek njiiti waa Argentine Sénégal am ndam lu yaa ñaari bal ci dara bi bu njëkk bi ko ko dugal moo di Djiby Mbengue bi nu doxalee ba am 16 minutes teg ci Khadim Maro à la 61e abi mu nekkoon match bu neex. xaadim boobu sax moo dugaloon biwu final bi de. ci ci ci Coupe d'Afrique bi. voilà yàgg mhm. na koo def man ni maninam la defaat. Mhm. Euh, Augustin Senghor daal di nay xamle lu waral ñu daal di euh, dakkandil match amical Sénégal ak euh, Mali bi nga xamante ne ñu ngi ko jàppoon 14 octobre bi ci Dakar. voilà ñu dikkaat ci match boobee waroon a dox ci diggante gayndey Sénégal ak ñii di waa Mali cette fois yi gaynde yu góor yi. ñu jàppoon ko le 14 octobre waroon ko joué ci stade Abdoulaye Wade boobule match nag mujjeewul antu ginnaaw bu nu sukkandiku ci Augustin Senghor jiite la fédération sénégalaise de football la mu xamle moo di bokk na ci calendrier bu saturé ndax le 12 ci lan waroon na def tirage au sort CAN 2023 bi war a am fële sa Côte d'Ivoire gaynde itam waroon euh, waroon ci daje ak ñii di waa Cameroun sa France le octobre ci ginnaaw ba itam la fédération euh, française de football xamal bu Sénégal ak bu euh, Cameroun ni France dafa waroon am match ci boobule bés tax ñu àndal ci match bi war ko jouer le 16 octobre kon Sénégal Cameroun mën noo jàpp le 16 octobre lañ ko joué lu ni mel nag indi impact bu baax ci match Sénégal Mali tax ñu bàyyi ko. Euh, Liga espagnole Ligue 1 française euh, Premier League bu Angleterre Bundesliga Allemagne Serie A Italie euh, ñoom daal weekend bi yëngu woon na lool ci wàllu football. wala bi dañ koy doore ak euh, sixième journée de la Liga espagnole niki samedi nag. Euh, Osasuna doon na dajeek ñi di waa Séville danoo témboo ku ci nekk dugalul sa camp yi morom FC Barcelone am ndam ci kaw ñi di waa Celta Vigo daan leen ñetti bal ci ñaar donte sax nekkoon na match bu metti lool ci Barça rawatina ci première euh, mi bi Almeria moom dafa témboo ñaari bal moom ak euh, Valence ci dimanche gi itam Real Sociedad doon na ci dajeek ñi di waa Getafe am ndam lu yaa dóor leen euh, ñeenti bal ci ñett Atlético Madrid dafa daan Real Madrid ñetti bal ci benn yamook défaite bi njëkk bi Real Madrid am ci saison 2023 2024 ci classement bi jamono bi FC Barcelone moo nekk ci kaw am 16 points Gérone topp ci am point points itam Real euh, Madrid doog a ñëw ci ñetteelu place bi am 15 points Athletic Bilbao am 13 points de Madrid doog ñëw am 10 points. maanaam carré d'as bi Barça bokku ci. Barça ah. Barça bokku ci carré d'as bi. non mi ngi ci kaw moo moo moo nekk ci kaw. ah moo nekk ci kaw. voilà. <laughs> naa ne instant yi moom kontaan nañ lool. <laughs> no kontaan nañu voilà défaite bi moom xam naa ne défaite waa Barça la parce que <laughs> loolu lañ doon ñaanal Real. Mm. voilà abi dañuy wutali euh, France Ligue 1. Mm. Euh, ñoom ñu ngi doon amal seen sixième journée ci samedi bi. Nantes doon na ci dajeek ñi di waa Lorient daan leen juróomi bal ci ñett wala Brest doon ci dajeek Lyon am ndam ci kawam daan ko benn bal ci dimanche gi itam match yu neex amoon na lance doon na ci dajeek ñi di waa Toulouse Montpellier euh, voilà moom itam dafa dajeek ñi di waa ren danoo temboo lance dafa gagné ñi di waa Toulouse ñaari bal ci benn Paris Saint-Germain doon na daje ak ñi di waa Marseille bu Iliman Ndiaye voilà Paris Saint-Germain nag da leen euh, daan ñeenti bal ci dara mu nekkoon première classique foofee ca France voilà si classement bi nii la demee Brest moo nekk ci kaw am 13 points Nice moo ci topp am 12 points Paris Saint-Germain doog a ñëw si ñetteelu place bi am 11 Monaco topp ci am 11 points itam Strasbourg doog a ñëw am 10 points. Mhm. voilà dañuy wutali euh, fële sa première League maanaam euh, Angleterre ñoom seen sixième journée itam la nekkoon. Manchester City doon na daje ak Nottingham ak Nottingham voilà. Mm -hmm. daan ko lu toll ci ñaari bal ci dara Crystal Palace doon na dajeeg ñii di waa Fulham ñu témboo ku ci nekk dugalul ca camp yi morom Burnley doon na dajeeg ñii di waa Manchester United Manchester United voilà am ndam ci kaw waa Burnley benn bal ci dara Chelsea itam. doon na dajeek ñii di waa Aston Villa Chelsea nërmeelu ci kanamu Aston Villa benn bal ci dara Arsenal dafa témboo ak euh, Tottenham bu Pape Matar Sarr ñu témboo ku ci nekk dugal sa moroom ñaari bal Liverpool dafa daan ñii di waa West ñetti bal ci benn Sheffield United ñoom itam voilà ñii di waa Newcastle dañ leen a jàpp mel ni kuy kuy basket rek voilà parce que 8-0 lañ leen. <laughs> bëri na de voilà <laughs> euh, classement sixième journée bi. Mhm. Manchester City moo nekk ci kaw am 18 points. Liverpool euh, topp ci am 16 points Brighton topp ci am euh, quinze points voilà Tottenham doog a doog ñëw am 14 points Arsenal ñëw si cinquième place bi am 14 points. Mhm. voilà ñu wutali Bundesliga Bundesliga uh-huh. sixième euh, cinquième journée samedi bi Bayern Munich moom itam ma ngay continuer di basket ba léegi sept la dóor ñi nga xamante ni mooy waa Bochum uh-huh. voilà Borussia Gladbach moom Glad euh, Gladbach xam naa parfois nag dinañu baal ci uh-huh. prononciation bi day xaw a métti voilà ñoom dañoo nërmeelu si kanamu Leipzig 1-0 voilà Borussia Dortmund dafa daan ñi di waa Wolfsburg benn bal ci dara si dimanche itam tam Bayer Leverkusen doon na dajeek ñii di waa Heidenheim Heidenheim dafa nërmeelu ñeenti bal ci benn classement bi foofee na moo nekk ci kaw am 13 points euh, Leverkusen topp ci am 13 euh, point itam Stuttgart topp ci am 12 points Leipzig doog a ñëw am 12 points Offenheim nekk ci cinquième place bi am 12 points. Serie A. Serie A cinquième journée Milan doon na dajeek ñi di waa Hellas Vérone 1-0 la ko Milan dóor ca dëkkam solo doon dajeek ñi di waa Juventus gagné ñi di waa Juventus ñeenti bal ci ñaar Empoli itam dafa nërmeelu ci kanam ñi di waa Inter Milan. boloñ dafa euh, nil ñoom ak Naples ku ci nekk dugalul sa camp yu morom Torino itam nil ak ñii di waa AS Roma seen classement mi ngi euh, nekk Inter Milan 15 points AC Milan 12 euh, points Lecce moom moo si topp am 11 points Juventus de Turin topp ci am 10 points Fiorentina doog a ñëw si cinquième place bi. am 10 noonu la football européen bi tëddee ni ki samedi ñu si doon jouer seen mhm. cinquième wala sixième journée. journée maam Khalifa yow da ngay suivre sport. football. Badou. Euh, <laughs> waaw su ma ci dalee daal suivre ko su ma ci dalul nag nekk ci samay nekk ci say mbir est que dàqul politique. <laughs> Ah. est-ce que sport dàqul ah, politique. sport neex na de weekend nga toog ci sa télé rek di seetaan match yi di daw. sport jàmm la mais mais politique moom du jàmm. politique du jàmm. <laughs> moom beneen affaire la. beneen affaire la mbaa du fitna kese la alors dañuy ñëw ci wàllu làmb wax ci face to face bi doon ndox ci diggante Aliou Seye 2 euh, ak euh, Modou Anta Modou Anta daal xamle ne dina corriger bu baax euh, mbëru waalo bi voilà loolee moom moo ci am Modou Anta Aliou Seye 2 amal niki samedi seen jàkkaarloo bi njëkk sa national ba ku ci nekk en tout cas yóbbante ay kàddu sa moroom comme ni nga ko waxee léegi Alioune sey nee na ko dinaa la corriger waaye Modou Anta Baye Fall bu Thiès lam ko xamal moo di voilà doo baax bay ñeex ci ci lépp loo wax li nga lépp li nga wax tey <laughs> bu jouru combat ba le 25 novembre xamal ni doo ko def ndax mënoo ci man dara Modou Anta si fàttali nag si defet la jóge Diène Kairé moom moo ko mujjee daan mm. tandis kii di Alioune Seye 2 moom succès la mujjee am ci combat bu mujj daanoon ci ki nga xamante ni moom moo di Zoss. Mhm. Euh, ñu waxtam ñu des tamit ba tey ci wàllu làmb ji ndax dañoo bëgg a delloo si waat euh, championnat de lutte avec frappe muy euh, CLAF waral nag lu toll ci huit jeunes espoir yu arène bi daal daal dinañ leen tànn xaaj leen ci ñaari poule voilà mu naroon nekk clave bu bu neex ci saison deux mille vingt trois deux mille vingt quatre bi ndax huit champion la ñu boole comme abi ni nga ko limee léegi ñu war a bëre ci seen biir Gaston Production jàpp ni wala loole luy delloo ci waat làmb la luy nekkaat lu am njariñ ci làmb lay doon tax mu boole kii di Ndiaye tin di rakk ci tafaatin Tine euh, caatu yaraax Gambu Gueye 2 ak caatu Yoff yamook poule A bi ci poule bi dañ ci am ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo moo di Doudou Sané booy Diakhao Général Malika ak njaga Doole voilà yooyu les actualités la ñu am jëm ci mbirum tàggat yaram mhm. ci semaine bi abi